tabaski gay moolum géej o xaaj ibrahim gay la nit ñi di xeñtu ci tabaski ren gi bakkanam jotewu ko bés bu ne rek ay gàngoor dem ngir nemmeeku ji ko waaye comme deli la def ba nëga ni mayeguñu kenn mu teganteeg moom bët o DG ni muy dundee neexul ci xol ay liggéeykat tamit ci neen lanu toog nde seen fit toogatut woy takk der yi ñoo ngi juux ci ñoom benn ak benn waaye ba nëga ni du menn xar bu ñu tegagum loxo lu ñu téye rek ndoggaar leen tax na seen kilifa daal di leen di woo monsieur le commandant mais yéen fu ngeen ne agent yi mon commandant boobu léegi ñoo ci mission bi mais toujours daal xam nga mais toujours lan ma dénk leen mission ba léegi benn résultat bu positif mu leen ma ko indil du nit du xar oh commandant owaat na gaayam ya ci brigade ba gaay tegal ko li xew lépp mu yebal ñeneen soññu leen nag buñ ci kaf boroom ca la leen sant ñu njëkkee fa ngir jëli ji ko doogaam di dem feneen jëli leneen o gaañi simileeg saa yegg nanu Kasnack fekk buntu kër ñoom su fi joor fees dell ki nit ñu tànt Kasnack lépp rankoñe waa kër ga di jooy moo fa wal ba buntu kër ga lépp taa gendarme yi ca lañu xuus dugg ci biir laajte lu xew ñu ne leen xarum sofi bi moo daldi faatu moom lañuy dëjal o gaañi seen yaakaar tas ba seen rankoñ di wal sax euh, teyuñu ko ci lañu continuer seen mission jubali kër libaas naka ñu yegg rek euh, fekk ko ci buntu këram toog teg lay tànkam bonjour c'est monsieur libaas libaas oui oui directeur technique de la radio Alfayda ok justement dañ yore mandat d'arrêt communal pour yow ak xar bi la directeur jox libaas comme daa tàng vous êtes qui fekk ma sama biir kër patati patata eh, mandat d'arrêt wa ñan xanaa criminel lañu jox mandat d'arrêt déjà sax li ngeen di wax man xar ba ma directeur jox fanaanul sama kër sa guddi ga laa ko jox sama goro xam nga ne sama goro mooy sama àdduna ak sama alaaxira at bu nekk maa koy jëndal tabaski gendarme yi waaye du xarum sàcc nag bee foo nga jële ko libaas nga ne yéen da ngeen dof la lu leen dal sama goro nga xam ne sama bakkan laa ko teg ki tax may nooy yi moo ma ko jox ma jëndal ko xar ngeen bëgg ma dem wàcc sama bopp di ko nangawaat jamais de la vie ngeen jàllale ma daal raxmati moo ma gën a loolu o libaas fa gaañi ba ko fa dal dugg ci biir fekk ne ngëndam xaru laadum la libaas topp leen ñuy xëccante libaas yéen wër ngeen sama xar mi nga xam ne deux ans maa ngi koy yar ngeen bëgg koo wéccoog xar mi direct sa joxoon xay leen dof o libaas ak waaj yi gaañi di xëccante yëf yi dëgër lool ne libaas bakkan bi la ci teg xaram mi mu doon yar ñaari at bile moom la nar tabaske gaañi mer ngadd ko ay liif o libaas mbay ca la cër yéene lasar xamatul fu mu nekk gaañ yi tàmbali di tiit gisam ko ngir delloosi ko libaas xulli ba di téen moom asamaan ci lañ ko sotti ndox libaas ximmali ko libaas tourné rek yem ci xaram wi comme dañu ko xojoon bi ñu koy xëccoo yëngal ko xar ma mujj dem bar sax libaas ne da koy toppi xar mi du ko gën a gore yéeg ci kaw terrasse ba ne day xaru daway xër la <laughs> naka mu yéegee ci kaw rek euh, terrasse ba sori. booyee jóge fa damay xaru. kay dugg ci biir kër gi nga war ma sama ñaari soxna yi ma tàggu leen <laughs> buñ ma jàppalee damay xaru. <laughs>